ñu ngi rafetlu teewaayu soxna Ndeye moom Serigne Cheikh Awa Balla Adja Kine Thioune ànd nañ ci délégation bàyyi ko kër soxna Bali. Serigne Mahmoudan. Serigne Basirou nee na mënu laa fay. lu ma nekk. bu ma geesoo gis ko. jërëjëf. monsieur le maire Abdoulaye Ka surtout maam Baara Sadio bii. ñëwoon na fi démb. kon mel na ni. lépp baax na soxna Gamba Diop ak diwaanu Masalikul Jinaan yëpp ñëw nañ. sëñ Pape Cissé mii yaayam mooy soxna umu xayri borom waañ wi bokk ak sëriñ Pape Malick ndey bismillah fal muminuuna jamian xaala lanu fal moo bu la ku bon ki bañal Abdoulaye Si Maalik nee na fal muminuuna jamian xaala mbokku la ñoo mawlaawu moo bu la neexul yaay koppam ki bañal alxaaji Abdoulaye Si Maalik nee na Tuuba Tiwaawoon ñoseen ak jaamal ak canaba kasaaka laa yéen wa njaasaan kum ci rek teralal Si Maalik kuy waxti waawoon ak Tuuba ñaari dawla lanu fi dawlatin te warul wallaahi day ku xamul seen dawla jiitu na tey loo bañ bañit du fi jóg waxal ba xottiku yaa malhuumu yaa xëttu xol yow doob jullit doolu kenn xam loo ci doon ba di wax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 wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wattaabiciina lahum bi ixsaanin ila yowmi ddin mbokk jullit yi fi daje asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di leen ziyaara di leen balu aq di leen massawu ci coono yi fa tabarakallahu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu fi dajale di ñaan sunu boroom tabaraka ni mënuma ko mayee ren ñu teewe ko yal na nu may ñu teewe koy ati at te kenn bañ a manqué ci darajay sangu yu tedd yi nu tudde bés bii fa tabarakallahu mu mel ni kàddu yi sax du gudd kàddu cant la kàddu ngërëm la jóge ci njabootu Seydil Hadji Malick Sy Pape Malick Sy te ñu ñëw ànd ak dogitam di soxna Fatima si mu ñëw ànd ak ay baayam di sëriñ Sidi Ahmed si Dabakh ànd ak baayam maam Alpha si Dabakh ànd ak ay magam alxaaji Abdallah Dia alxaaji Moustapha Njaay alxaaji Ousmane Lo alxaaji Mbay ak alxaaji Modou Sarr ak man mi taxaw di wax ak yéen fa tabarakallahu ngeen dégg ni délégation bi dugal naa ci alxaaji Moustapha Ndiaye ak alxaaji Abdoulaye Dia ndax ci biir lañu nekk ndax ku leen xam-xam seen digganteeg sëñ Pape Malick si kon tey su bis bu day li amee ñu jagleel ko sëñ Pape Malick di ko ci rendre hommage njaboot gi ñëw fekk leen fi ala kulli xaal sundee lim njaboot gi jóge ci kër ga ñoom ci biir njaboot gi la ñuy bokk sëñ Bachir njabootu sëñ Pape Malick ñi ngi lay sant ndax defuloo lu dul delloo mbattu candaa la ndax damay faral di wax ni sëñ Pape Malick Sy radiallahu taala anhu yàlla dafa dogal mooy buum gi nose woon diggante kër Seydil Hadji Malick ak sunu maam kër sunu maam Cheikhul Khadim sëñ Cheikh Tidiane Sy Al jëloon ko doxalewoon ko diggante ak bépp kilifa bu nekk biir Touba ba yaakaar naa ni képp ku toog ci saal bi te miin jataayu poroxaan su masaana jot di nga gis sëñ Pam Malick dem toogal fa Serigne Cheikh dem toogal fa njabootu Seydil Hadji Malick yépp ah kon lii su amee ngeen jël bis bu day nii di ko ci rendre hommage ñun njaboot gi duñu man lu dul sant leen te ka jiitu ca sant ga mooy Serigne bas bi fa tabarakallahu Mbàkke ñi ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla suturaal ndax kat sunu borom tabaraka wa taala dafa am lu mu wax ci alxuraan dafa wax ni innamal mu'minuna ixwa waaye sunu maam sëriñ Babacar Sy daan wax ni bala muy nekk fokk ñu dox ko wax ko jëf ko te yow nag yaa ngi dox ngir dëggal aaya boobu sunu borom def ko wax ci biir alxuraan kon Mbàkke yal na ci yàlla gën a yàlla jàppale la suturaal la ci turu famille bi soxna sàng ca kër ga di sunu yaay soxna maam Baas Fatima ngi nii soxna Safiya liggéeya ko tënk ñëwul waaye fa tabarakallahu ñun ñëpp ñëw nañu di la ndokkale ant kook suñu kilifa yi Sidi Ahmed ak maam Alpha fa tabarakallahu di la wax jazakumullahu ana xayr yàlla na ko yàlla yàgg taxaw yàlla suturaal la ba li nga ci bëgg yéene ko ci yàlla mottali la ko sa barke maam jërëjëf jërëjëf sëriñ Pape Cissé léegi nag Cheikh sëñ Abibou Mbacké mu sëriñ Fallou